bon asalaamaaleykum sama gars yi tey nag dañu ñëw rapidement rek pour wan leen naka la ñuy def ba trouver suñu code postal ici Sénégal code postal nag bu ñu ko waxee daanaka day jëm si wàllu localisation pour wan la gox bi nga xam ni foofu nga dëkk ban gox postal la amee kon ñu commencé da ngay ñëw daal di dugg fii Google ngay njëkkee boo demee Google moo xam Google Chrome wala Firefox wala moom su ma doon kon noonu ngeen ko gisee si tutoriel bi après soo ubbee googu bi da nga fi fekk euh, page bi nga dem si barre recherche bi nga daal di fay bind code postal Sénégal comme noonu ngeen ko gisee après moom ba léegi ngeen ko gis nga code postal Sénégal moo nekk léegi nga daal di continuer pour région bi nga dëkkee yow nga bës fii mooy la poste Sénégal www point la poste euh, point sn euh, code postal mooy boobu noonu côté nga daal di koy bés mu daal di def ay recherche nga daal di taxaw xaar bu defee recherche ba pare après lii la lay indi mu daal lay bindal recherche par localité Dakar gis nga ko comme Dakar mooy capitale bi moom lay ko sot directement bu fekkee Dakar nga soxla nga continuer daal di ñëw gis nga nga daal di cliquer ci deuxième phase bi localité nga def Dakar après nga daal di mu daal di lay laaj fan si Dakar nga daal di def ko ñu ko def gis nga plateau léegi code postal Dakar Plateau moom nga bëgg a seet léegi ñu gis ko noonu lay indi mu daal di ni fan ci Plateau comme que Dakar moom dafa am ay unité nga daal ni ko immeuble fàtt euh, léegi mu indil la noonu code postal bi gis nga ko day daal di doon dix mille léegi tamit euh, nga xam ne ñu Dakar léegi nga daal di nga ko nga xam ne bu fekkee ni Plateau ngay dèjà immeuble Fat code postal mi ngi noonu léegi nag nga daal di jàllaat si beneen waaw kay mu daal di euh, nga di ñëwaat série bi daal di koy sélectionné gis nga comme moom ngeen koy gisee si tutoriel bi moom itam bii lay doon souvent nag région boo sa fas yéene rek localité yu baree bëree bëree bëri fii si Sénégal ñoom ñoo bokk nañ code postal donte nag am na ñuy wuute. yenn si régions yi boo duggee ci département yeeg ak grande ville souvent xaw am différence léegi ñu jógee Dakar def Thiès hors de Dakar bu moom ne gis nga ñu daal di foofu noonu euh, Mbour par exemple ñu duggee Thiès comme Mbour région la nekk ñu jël Mbour léegi gis nga ko ci ci bi pour pour soxla mi ngi nekk vingt-trois kon mën nañoo jàpp ni Mbour 23 lañ boycotté ndax buñ changé Sbandia ak loolu Ndiaye gis ngeen ko léegi du changé 23 mille taxaw léegi ñu jógee foofu ñëw euh, daal di xooli beneen localité gis nga ñëwee Diourbel ñu dem si directement dëkk bu sell bi ci Touba wala ñu daal di jaar Réfane ba pare euh, léegi gis nga bu ñëwee Réfane donc ñu dëkkee Réfane bu ñuy xool nga leen koy xoolee. ñu jógee refaan daal di ñëwaat daal di jàll xool fii jànqar gis nga jànqar bi ngi doon moom tamit vingt et un bu ñu jógee foofu ñu daal di jàll xool daal di wàcc xool beneen région ba ñu daal di ñëw xool. fan si Touba gis nga quartier Touba yaa ngi ay Touba Guédé ñu xoole Touba Guédé bi voilà mu doon vingt deux mille trois cent kon nan xam ne localité yi nekkee Touba vingt deux mille trois cent mooy seen code postal waaw ah, gis nga bu mu localité yi jógee Guédé daal di dem xooli beneen localité boo xam ne mi ngi si commune de Touba dañuy daal di gis ni automatiquement même code postal bi la ñuy trouvé léegi bi ñu xoolee ci faan yi ci faan yi ci commune de Touba la bokk a nga ñu ngi fay cent kon même code postal la après ñu jógee fu dem xooli Mbàkke Mbàkke nag moom Touba ñoom ñu pression jur bel gis ne automatiquement code postal yi parce que Mbàkke mi ngi nekk vingt deux mille cent vingt deux mille cent mooy nga ko moom mu ngi léegi ñu continué waat xool Taïf Taïf ak Mbàkke c'est la même c'est le même code postal du moins voilà gis nga benn comme niñ ko waxee yenn si localité yi ñooy bokk code postal li ñu gën a wóor daal mooy ko sa bopp nga xam ne boo ko bëgg a chercher si Sénégal ak fu mu mën di nekk rek da ngay daal di am code direct ndax code postal liñ la koy laaj bari na trop euh, liñ la koy laaj bari trop trop trop ci yoo xam ne da nga def moo xam inscription en ligne wala kii defar ak ak yeneen yu mel kon daal code postal mi ngi noonu ñu xamee ko noonu incha allah waa mbokk yi kon code postal mi ngi noonu ñu xamee ko noonu moom la leen indi loon tey euh, expliqué leen képp koo xam ne bëgg na koo xamal sa bopp rek nan nga koy def comme compliqué wul da ngay dugg ci sa téléphone rek nga dem dugg di xool sa localité su fekkente ne Dakar la nga daal di jël Dakar bu fekkente ne Dakar aussi boobu région da nga ko nekkal boo leen di abonné di ñu suivre di ñu gën di topp ngir gën a